aoudu billahi min asheytaan irajim bismillahi irrahmaani irrahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli mbokk yi asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ñu ngi leen di nuyu baax di leen ziyaara di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku si yéen di ñaan sunu borom subhaanahu wa taala mu bala ñu defal jàmm barkeb alquraanul karim di leen bàllu di leen bàllu àq ci weeru kooru sell wi ñu nekk mbokk yi comme nin ko baaxoo def sax su nekk rek di wax ni képp koo xam ne bëgg ngaa topp suñu liggéey bi incha allahu rabbi bëgg abona ci beneen chaîne bi boo enregistré numéro bi da nga jàkkaarloog whatsapp bi bu ko defee boo nu envoyé message di leen la mën a yónnee lien bi nga mën cee abonné mu doon seen boo xam dañ cee bëgg doxal ci wàllu actualité ak wàllu actualité ak wàllu xam-xam yoo xamante ne bii xam-xam yu raar lay doon ci xam-xamu sunguf ak reen ak ci alquranul karim waaye nag mbokk yi wax leen di wéy leen di abonné ci chaîne bi day partage vidéo yi te di ko aimé incha allahu rabbi comme neen ko baaxoo di waxee tey ñu indil leen lu am njariñ ci salaatu ala nabi waaye laata loolu mbokk yi ñu laay biirante ci weeru koor wi nga xam te moom la nekk mu doon weer woo xam ne weeru ngëneen la weeru promotion la lépp loo xam ne waaye nga ko ci daa def ci lu baax na nga lu yokk ko rawatina jàng alxuraanul karim dafa mos di am solo waaye rawatina weeru koor wi ndax si la alxuraanul karim wàccoon moo tax maa ngi ci soññ képp koo xam ne mën ngaa jàng alxuraanul karim ba ki nga xam ne sax mënul na fexe wut amaayta banaasi di ci nam na bi di ci góorgóorlu bu dee mënu ko mu fexee jàpp tur yàlla moo xam la ilaha illa allahu la moo xam astaxfirullaha wala salaatu ala nabi bu man mbokk yi te xam ne weer yi weer la woo xamante ne bii occasion la pour nit ki góorgóorlu ci diggam ak boromam moo xam da daa jëfandikoo lu neexul yàlla moo xam mu daa tox moo tax mu moo xam mu daa naan sàngara lu ci mën a doon rek mën naa profité bàyyi waale ko ci weeru koor yi boobu bu weeru koor yi jeex fekk mu mën koo bàyyi kon weer la woo xam ne weeru ngëneel la doxuk bokk jéggalante seeti ku tawat ak dimbalante surtout ku nekk la nga am nu mën a toll na nga ciy dimbali sa moroom moo tax sax ñu profité ci wàññil leen bagage yi nga xam ne danañ ko jëfandikoo daa ko liggéey lii di jaaro bi nag moom waxoon na leen ko ma ngi leen koy waxaat jaaro bi vingt cinq mille lañ koy liggéey ci weeru koor wi waaye nag bu weeru koor yi jàllee day delluwaat ca quarante cinq mille ya bi nag ki ko xamul jaaro la boo xamante ni boo ko takkee day dox ci wàllum wërsëg ak kaaraange ak bayre mu doon ci nag loo xam ne bii moom ñun ko liggéeyal ban yor ko xam nañ ko waaw ñun ñu ko yor itam xam nañ ci dara jaara boo xam ne ñu ngi ko daay liggéeyee quarante cinq mille francs waaye weeru koor yi tax na ñu def ko vingt cinq mille francs képp koo xam ni bëgg nga ko rek boo kook ñu incha allahu rabbi ci numéro bi des na la ko mën a liggéeyal yóbbante la ko ci kàttanu suñ borom subhanahu wa taala téere bi nga xam ne moom la ñuy wax sayful aada yi muy ndomb ga ni wax sayful aada yi ñu koy wax samp nit ñu ngi ko daay liggéeyee cent mille waaye def nañ ko cinquante mille ci koor gi téere bi ñu wax deru kundóot tam moom itam ñu ngi ko daal liggéey cent mille waaye def nañ ko cinquante mil ci koor gi waaye di wax ni képp koo xamante ne bii bëgg nga càngaay bi ñu liggéey deux cent cinquante mille muy xamante ne bii kuñ koy liggéeyal ku nekk mën nañ koo noté te xam ne wërsëg moom kenn mënu la koo tee am ci kàttan suñu borom waaye moom itam ñu ngi koy liggéeyal cent mille ci koor di wax ni képp koo xam bëgg nga am traitement lu jëm ci wàllu jabet wàllu estomac wàllu néew doole ci wàllum sëy wàllum ki nga xamante ni bii sax feebar daa nekk ci moom boo xamante ni bii feebaru deret la incha allahu rabbi ak traitement jabet yi képp koo xam ne bëgg na ko incha allahu rabbi traitement diabète bi nag moom ñu ngi ko doon liggéeyee trente mille francs waaye def nañ ko moom itam vingt cinq mille francs incha allahu rabbi ci kàttanu suñu borom ci képp koo xam ne bëgg nga traitement diabète bi incha allahu rabbi waaye nag diw profité képp koo xam bëgg nga jaaro bi jaaro bi nag moom ñi ko daalaaj bari na lool li tax ma ci insté nag daa doon lu am solo loo xam ni li muy indee wërsëg daa yéeme lool ak wàllu bayre surtout commerçant yi ña ko ci am moom xam nañ ko ci kàttanu suñu borom wallahi ña ko ci am te ñu dooni commerçant xam nañ ko moom nag bu weeru koor jàllee quarante cinq mille lañ koy liggéeyee ñi ko liggéeyal te yor tan yor ko ñoom xam nañ ci dara quarante cinq mille lañ ko liggéeyee waaye nag diir wooru koor yëpp nag des na leen ko defal vingt cinq mille francs ci ko bëgg incha allahu rabbi maanaam daal lépp lu waay yittewoo daal incha allahu rabbi lu bari wàññi nañ ko ci weeru koor gi. tey nag ñu indil leen loo xamante ne bii mbokk yi képp koo xam ne sax nga ci wallahi wal quraani wallahi wal quraani xewali suñu borom dana jóge fu nekk maanaam doo dem ci kenn wax ko sa soxla nit ñi kay ñooy ñëw ci yow jala wax sa soxla nit ñi ñooy ñëw ci yow di la diis seeni soxla nga leen koy fajal mu doon salaatu gu wax salaatu ala nabi ku ne xam na ni salaatu ala nabi moom suñ boroom moo wax julli déggoo leen fenn suñu borom ni maa ngi koy def maag say malaaka suñu borom waxul ne dinaa woor maag say malaaka waxul ne dinaa leen saraxal dinaa saraxe maag say malaaka waaye salaatu ala nabi képp la suñu borom subhaanahu wa taala wax ni inna allaha wa malaykatahu yusalluuna ala nabii yaa ayyuha alladina amanu sallu alayhi wa sallimu tasliman kon suñu borom lu muy def ak malaakaam rek booleeg digal nu ko lu am solo la tey nag ñu indi leen salaatu goo xam ne salaatul inaam la salaatu xéewal wallahi wal qur'aani ku ci sax ko nekk moo xam lim boo ko mën a def waaye daal lim bii ñu ci joxe mooy quatre-vingt-douze lim bu ci am solo la quatre-vingt-douze nag mooy jàpp turu Muhammad quatre-vingt-douze mooy jàpp turu Muhammad yaa xool nag bu la neexee liggéey ko mille cent onze bu la neexee nga liggéey ko lu gën a bari lool bu la neexee nga liggéey ko deux jàpp kun fa yakun waaye daal quatre-vingt-douze bi képp koo xam ne yaa ngi koy liggéey suba ngoon wallahi wal qur'aani da nga ma woowaat sant sa borom bu baax a baax li tax nag ñu indi mel nii weeru koor daa doon weeru ngëneel woo xam ni tawfiix la ku koy liggéey ku nekk doo tàggook xéwal barke seexul Xadim te ak ñàkk dana la sori lool sa mbiri àdduna dana ñàkk sa mbiri àllaaxira dana jàkk ndax yiwu àdduna la agu àllaaxira waaye nag na ngeen profité góorgóorlu ci jaamu yàlla gi bàllonte ak man itam ma di leen bàllu àq te di leen bàll ballonte àq surtout ak jéggulu suñu borom subhaanahu wa taala istixfar lu am solo la ci weeru koor ak jàng alquranul karim ak dem ci jataay yi ni waxtaanee lislaam ak diine ak jataay yi ni waxtaanee alquran lu mel ni conférence ak jataay yi nga xam dañ koy amal ci weeru koor lu mel ni ay diiwaani fulki yi incha allah rabbi ku fa mën di teew itam lu baax la ndax ñun ñii di wax ak yéen mu jot weeru koor gi ñooy jàng fulki bi ba mu jeex tàkk fii sunu dëkk incha allah rabbi kon mbokk yi ñu dem ci salaatu gi mooy allahuma salli wasallim wa baarik ala sayidina muhammadin wa ala alihi adada incaamillahi wa ifdaalihi allahuma salli wa sallim wa baarik ala sayidina muhammadin wa ala alihi adada incaamillahi wa ifdaalihi bu la neexee nga ni ancaamillahi wa ifdaalihi allahuma salli wasallim wa baarik ala sayidina muhammadin wa ala alihi adada an'aamillahi wa ifdaalihi képp ku ci sax su bàngoon nga di ko wéyal 92 wala lim bu ko gën a bari bu la neexee salaatu ala nabi lu gën a bari gën ci waaye bu la neexee mën ngaa jàpp 92 ndax lim daa am solo wallahi al azim da nga dem ba sant sa borom subhaanahu wa taala lu am solo la ñoo ngi leen di jaajëfal di leen baal lu àq te di leen baal di leen ñaanal jàmm dañaan sa borom def ci barke ci barke zahra ramadan barke salaatu ala nabi wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu